man di jot video yu am solo yi bayiko fi ci HDP religion da ngay bes fi ñu wax sabone bo noppé ñi tek ci colosse bi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سوي الرضوان والتمكين والبكي نوغي دين دينيو نيو دين كو باخون دفا لي موي دي وقت عن شيء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 waaye gis nañu ni bani Hachim ak bani Abdul Muttalib dañoo taxaw temm ci aar yonente bi sallallahu alayhi ak dox digganteem lépp lu jëm si ci kawam ak lu mën a doon te duñu ci bañ dara bi ñu gisee taxawaay boobu bani Hachim taxaw ak bani Abdul lañu dajaloo ñoom waa Qurayshin ci fu ñuy wax xayfu bani Kinaana ci xuru al muhassab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 ci njëlbeenug euh, muharram ci atum juróom-ñaar ci bi yàlla yónnee yonent bi nu boobaa gi léegi bi at mi bi gàdd bi nu boobaa gi amee juróom-ñaari at ci njëlbeenug muharram di juróom-ñaareelu atu nubuwa gi ci la loolu xew ñu dugg ci wenn xur beru fa euh, jaxasoo jaxasootuñu ak nit ñi duñ leen jaayee te jëndeen jëndantente ak ñoom duñ jaxasoote ñoom ci dara am na ñetti at ci biir xur woowu muy xur Abi Talib boobu léegi loolu tar ci ñoom lool metti amatuñ ab dund amatuñu benn ndimbal buy bàyyi ko fenn ndax yéefari màkk yi duñ bàyyi mukk aw ñam di dugg si màkk wu ñuy jaay walla dara lu ñuy jaay di dugg si màkk te dañoo gaaw jëkkante ko jënd ko buñ ko jëndee ngir mën koo xañ bani Hashim yi ak bani Muttalib ñi ñu jubloo dënge ñuy def lu fi dugg si rek ñoom ñooy jëkkante gaaw jënd ko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 danga koy nëbb waaye doo ñëw mukk ci àdduna muy siiw ba nit ñi di ci amu yoon daanañ defit diirub ñetti at yooyu pour ñu mën a génn ci nit ci bitti ngir mën a jënd dara duñ ko man ci lu dul weer yi ñuy tuddee al ashhurul xurum yi ñuy tuddee al ashhurul te mooy ni ko waykat bu waxee ni zoo qiidatin zoo xijjatin muharram ورجب الفرد شهور حرم أشهر الحرم بنكو أخي مويني أنت باري جو أخي عدت سو حجة محرم ورجب الفرد شهور حرم لكن هذا فضل أغير يو خامني عربي دينكو ورمع لنك جك يو خامني بوجوتة كان دوشي خيخ كان دوشي تور درد لولنيت مانا دف ak lu ngeen mëna sékk ak doonte la rayal sa bàyyi bu ngeen dajee ci biir weer yooyu doo ko sañ a ndax boo ko reyee euh, day mel ni danga xët aada joo xam ne arab yëpp dañ ko aada woon nga xam ne booba aada ju ñu aada woo la ci ba ñuy doon ay jaaxil léegi ñoom euh, ñii di bani Hachim ak banil Muttalib nag diir boobu yi nga xam ne mooy ñeenti weer yooyu nga xamante ne léegi léegi ab xeex lu mu mënoon dox diggante nit ak nit it biir weer yooyu doo ci sañ a kenn doo ci sañ a fayu sa dara ci lañ daan génn di jënd liñ liñ liñ bëgg a jënd ci ab dund waaye bu dul loolu sax duñ mën a génn ndax dafa mel dañ leen tëj ci aw xur buñ masaan génn ci weer yooyu bay jënd it ñi ngi jënd ci jëgg yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo feneen ci bitib màkk lañ bàyyeekoo ñëw di fi jaay waaye waa màkk duñ jaayanteeg ñoom duñ jëndanteeg ñoom la ñuy jënd ko su néew ci luñ war a dunde ci weer yi ashurul hurum ci yeneen jëgg yu bàyyeekoo feneen dañ koy jënd waaye duñ ko jënd ci waa màkk ndax duñ leen nangoo jaay ndax demoon ba war a jënd ci waa màkk dañu leen koy seeralal seeral përé bi ba duñ ko mëna a ba ko att ndax bu dee lu ñu war a fukki tam bu dee ñoom bu féké ci bëni hasim nga bok ma nga bok ci bëni mutalib ci misal ñaar ci mëna la wax la lañ ko jaay bok fé sax xel du xalaat di jënd do ko jënd man non non lañ doxé wax nañ ni kañ daan wax hakim ibnu hisam nak, daana jël lu melni ni jël dugub ni di ko yët bàjjanam khadija xadija bàjjanam mu di ko ko ngir yaram ko ci dundu bu nagas bobu ñu dan dundu wax na na dan bis eh, mu jël ko Abu Jahlin taxaw galan ko téye ko ni ko dundu bi du gitu dem waye abul bokhtori yi dox sen digante ñew wax ca ba man ko bayyi mu yobbu dundu bobu mu yobbu ci bajina Abu Talib ku daan ragal mbirum yonente bi la daan ci am ak ragal lol ci mom ba daan wax ni buñ démé ya, ba nit ñëpp tëdd lay digal yonante bi ñëpp tëdd wër mom mu dugg ci seen digg tëdd ngir ñu mën ko aar ngir jamono bu ne mi ngi japp ni rek xagn na dara dina bëtte feneen ñu ray ko karanga jëj jëpp ni mom abou talib amon na ko ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam sallam yonante bi ci jamono yi euh aji xam nga ajit dafa doon lo xamni arab yi dañ ko dafa doon seen aada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 ci atum fukk ci gàddaay ci la ci lañ xotti kayit woowu nga xamni ni doxone doxoon diggante ak ñaari guerrier yi muy Bani Hashim ak Bani mutalib ke jëk taxaw ci ni li dañ ko wara dindi moy ku ñu wax Hisham ibnu Amr mi ngi bok ci Bani Amir ibnu Luay Hisham ibnu Amr mi ngi bok ci Bani Amir ibnu Luay da daan dem ci bir khurwa di seet Bani Hashim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 mu dal di dem mom hisham ci ku wax Mutaim ibnu Adi dal koy wax mbok gim am ak bani Hashim ak bani Muttalib dal koy yedd ci and gim and ak wa Xuraysin ci tooñaange jooju ak bunduxataal gi ñu debul khatar Mutaim niko waye nu may def man ken la mbolo ñu ci depo ànd lu ma ci man mu amna ko la ñaaral mu Mutaim niko ko kan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 ni leen giñ naa ni du toog du ma àgg te du da ngeen a xotti kayit wi ndax kayit wi kayitu tooñaange képp tekkiwu dara Abu Jahlin jóg boobu mi ngi woon ci peggu Kaaba gi ni ko fen nga wallahi kayit wi kenn du ko xotti bi mu waxee loolu Zamaa ibnul Aswad jóg ni Abu Jahlin wallahi yaa ko fen kayit wi bi nga koy bind it anduñ ci woon dañ ko war a dindi Abul Baxtari yi jóg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 set dal solution ci nu ñuy def legi ñu bëgg a diisoo yenen yonent bi ci kanamu Abu Jahl benen yoon muy dañu dal di jog ñew gis abo Talib ni ko dañu bëgg waxtaan ak sa doon mbokk ni dal di ñew dajalo ci kanamu Abu Talib biñ dajalo wax ak mom ashraafu Xuraysin manam kilifa Xuraysin yep tew ataba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 boo xam ne su ngeen ko waxee da ngeen ci moome arab yi te ajam yi danañ leen ci mokkal danañ mokk jëm si topp ci seen ginnaaw ndax nanguwu leen benn baat bu ma leen jox képp boo xam ne arab yëpp da leen ci yilife te ajam yëpp yi danañ ci mokki topp ci seen ginnaaw bi mu waxee loolu aboo jaxlin ne ko waxuma la benn baat fukki baat fukki baat mën nañ la ko jox leen waxal lu mu doon yonente bi ni ko laa ilaha illa allah laa bëgg ngeen wax Abu Jahl ni ko xalaatu seen xel xalaatu ko ni ko waaye ba mu benn baat ngeen moomee ci arab yi dañu ko fukki baat boo ñu ko laajee de nañ la waxal mu ne ko mu ne ko laa ilaha illa allah képp laa soxla ci ñu daal di tàccu ñu daal di tàccu daal di ko waaw loo bëgg da ngaa bëgg kon yàlla yëpp ñu def ko mu doon benn yàlla aja alal alihata ilahan wahid ne ko yow sa mbir yéeme na nag loolu moom xel du ko xalaat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 Qurayshin mujj daje ak eh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo waral aaya yooyu wàcc ginnaaw ba ñu tasaaroo léegi bi loolu jàllee nag kon atum njàqare te na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy at man eh, Abu Talib mi bàyyam doon ko aar eh, wéradi gi dafa gën a métti ci moom ba diir bu gàtt la teg dal di faatu mi ngi faatu ci rajab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 xana do bañ ngir mi sa Abdul Mutalib nekkoon nga jekki ba am juróom ñet fukki at ak nangam won ko di dal ñom tam bi yent bi waxe li niko ben baat soxla ci muy baatu la ilaha ngir ma man la koo layale fa yalla ñom ñaar ñi ñu taxaw na ko xana do fi ngir mi sa baye nekkon ak say mam diko nangam nangam diko war ba mujj gi bu mujj rek fekk leen ci lañ nekk dal ni man de maa ngi ci Abdul Mutalib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 faatu radiallahu anha mi ngi faatu ci weeru ramadan ci atum fukkeel moom ba tey ci nubuwa yi jamono bi mi ngi faatu mi ngi am juróom benn fukki at ak juróom booba yonente bi sallallahu alayhi wa mi ngi toll ci juróom fukki atam kon Xadija mënees na ni xéewal gu yàlla xéewale woon yonente bi la ndax des na lu mat am na ak moom lu mat ñaar fukki at yoo xam ni daf koy jàppale te booba mu nekk ci ganjaa xati dundam moom yonent bi sax di ko dimbalee ci jotal yonente gi di bokk ak moom ci coono yi jihaad yu metti yi mu daan jihaad yëpp moom Xadija ànd ko ak di ko dimbalee ci jëmmi boppam ak alalam moo tax yonente bi wax ni Xadija day mun ma ko yem rek nit ndax ma nit ñi wedde la ma na ma ba ma nit ñi euh, weddee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 kuñ daan wax Sakran ibnu Amr moo doonoon borom këram dafa jëblu woon gàddaa yoon sax ànd ak soxna soosu di Sawda waaye foofee ca Habasha ca Éthiopie ca la jëkk euh, borom këram boobu faatoo bi mu faatoo nag bi mu euh, bi mu bi ba mu jeex ci la ko yonent bi sallallahu alayhi labat daal di koy denc mooy jigéen ji yonent bi jëkk denc ginnaaw bu Xadiijatu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 juróom-benn fukki mil mil nag am na ñu wax ni moo suñu kilomètre léegi yi ñoo toll am ñu ni moo ëppee tuuti kilomètre waaye juróom-benn fukki mil daal lay ba muy demit dafa dox dem ak dikk daf ko dox moom yonent bi ànd ak euh, Zayd ibn Haarisa na ibn Haarisa dafa doon ab jaamam bu ko Xadiija mayoon mu kii mu mbaa yàlla woon ko léegi bi muy dem Zayd na Haarisa moom ma moom la àndal dem Taif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 bam ag ci ben lak bo xamni lak làkk euh, ab tool la bo xamni hutba ak shayba ñaari doomi rabia ñoo mon lak bobu waye dox nañ top nañ ko bu mat ñet mil seet digante mak taif bam duggé fa fe nak legi tok fa di ñu dor ñu wol ba ci ko delu delu mu daal dem ci genn garabu bi daal di tok ci kerga ga ci mir bi bam démé ba wëru ci mir ba la ñaan ñaanam gu siw allahumma ilayka asku du'fa quwwati yow yàlla yow de laay jàmbat sama néew kàttan wa qillata xiilati ak néewuk sama pexe wa hawaani ala naasi ak manqué te gi ma nit ñi manqué doyadi gi ma doyadi ci ñoom de yow laa koy jàmbat yaa arhamar rahimin anta rabbul mustadafin wa anta rabbi ne ko yow yaay borom ñi ñu doyadal te yaay sama borom ilaa man takilu ni ana ci ko muy wéer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 man di jot vidéo yu am solo yi bayiko fi ci HDP religion da ngay bes fi ñi wax sa bo ne bo noppé ñi tek ci colosse bi